Basiir Lo doomi sëñ Mustafa, Abdoura sëñ Moustapha Lo la moo xam ne doomi sëñ Abdourahmane Lo suñu waajuru jigéen itam mi ngi tudd Soxna di jarbat ci sëñ Daam Abdourahmane Lo ñu ngi ganee àdduna dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam Kayal biñ fa tolloo ci jàng ñu yóbbu nu ko sëñ Suwaay bu foofu lañ dalee waaye fa ñu ko Mor Mbay Cissé yi nekkoon ci loxo yi sëñ Moustapha Guèye foofu lañ mokkale ba bind ñaari kaamil ginnaaw ba ñu jóge fa ñëwaat Touba ci kër sëñ Abibu foofu lañ jàngee ba jàng luñ lu bari ci li nga xam ne moom lañ war doon jàng moom lañ jàngale fii ci Sénégal ñu jóge fi nag dem Arabie Saoudite nekkoon ri nekk Riyad ci jaamiatul imaam Mouhamadou Sow foofu lañ jàngee ba am ba diplôme ci littérature arabe ñu nga fa jógee ñëwee bi mu fi jógee foofa ñëw sëñ Moutala yóbbu woon ñu nekk directeur école Azhar ba nekk Ndar ndax Saint-Louis bi ñu fa ginnaaw ba ñu jógee fa ci 2000 ba 92 dem dem Amérique doon yokkaat suñ njàng tuuti nekk fa ba 95 ñu soog jóge fa ñibbisiwaat Sénégal ñibbisee Sénégal. ba deux mille ba deux mille ñu amaat beneen visa bu Amérique ñu dem amaat demaat foofu waaye bañ demee ñetti weer lañ fa def ñu bisiwaat Sénégal daal di delluwaat 2001 bañ delluwaatee 2001 te santeeg ñuy ubbi kër sañ Touba ga nekk New York ajjuma ju njëkk ji sëñ Mourtala moo ko jiite ajjumay ñaareel ja ñu di ko xaar mu yónnee ne mën naa dem jiite boo jiitee ba noppi mu woo sëñ Mamour wax ko ne na wax dooma na wax waa dëkk ba ne leen man la fi bàyyi ngir ma nekk imam nek na euh, fa 2001 ba 2013 2013 la fa jóge ñëwaat Sénégal ba li ni ni li xewaat ni dem mom dem mom wax deug yalla jaxlé nañ xam nañ ne musuta am ci Dakar ci liñ japp dox ñangu tambalé sax ci tertu ba yaakaar naa ne ba dem li fi xew yaakaar naa ne képp ku xey ak ko xamné ne yaa xalaat di xol da nga xamné li musu fi am kon lolu nak la ko waral war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax waaw liñ ci gën a jàpp mooy xam nañ ne nit ñi wax dëgg yàlla bari woon nañ trop loolu nag waaye nag comme doon na loo xam ne xaw nañ ko miin tax na euh, amuñ ci jaaxle lool xam nañ ne daal nañ mbooloo dem moo xam ne yaakaar naa mosuñ koo tiim ñun ci euh, kon nag lool lool maanaam tiim nañ jiit nañ mbooloo moo xam ne mosuñ leen jiite gis nañ ci mbooloo itam loo xam ne mosuñ koo gis kon loolu de am na lu mu def si ñun ci xam ne lislaam am na doole Sénégal xëy na lay lay da ciy des rek mooy nañ ko seet ba nañ fexe ba mu tege fi mu war a tege ak ni mu ñu du ciy doxee niñ ci war a doxee